métier garde corps bi li ma ci gën marqué mooy sama séjour à la à la présidence waaw mu am ci satisfaction totale totale deuxième étape bi nga xam ne tamit am satisfaction totale moi bi nga xam ne dama protection rapprochée wu Idrissa Seck durant la campagne mu donne un opposant mais mu donne une autre expérience pour moi. une façon d'expérience L'État état ñëpp xam parce que l'État ñu un état budget bu ñu budget pàcc pàccee pàcc pàccee ne ne priorité waaw lii mooy priorité lii mooy priorité lii mooy donc loolu dafa nekk loo xam ne nit ki mënu koo maîtriser waaw mais nit ki état daf ko yoreel sécurité mais moom it dafa war a am sécurité boppam sa sécurité bopp mooy yar sa bopp d'abord waaw di def sport ku mën a sport de combat nga def ko pourquoi parce que dina yar sa jikko dina defar sa yaram dina la permettre nga am euh, nga bañ a nekk ci côté wu ñi nga xam ne ñi mooy ñi bon waaw parce que euh, ouverture yi bari na waaw donc assurer sa propre sécurité war na kenn ku ci ne te lañ koy war a mën a commencer mooy di pratiquer le sport et plus particulièrement le sport de combat ba nga xamee ne bii ah, wax dëgg yàlla tey bu nit ñëwoon bëgg laa def naka sa lu noonu balaa lay état di wallu si dina fekk yow war ngaa mën a protéger sa bopp C'est mooy première étape deuxième étape bi mooy le maximum de moyens forces de sécurité yi police muy gendarmerie et au troisième niveau muy armée waaw loolu yëpp aussi comme ni au départ définition politique bi mi dépendre ci moyens yi nga xam lañ def à ça ba léegi dabagul niveau banditisme bi ni muy ni muy gaawee toujours mooy gën a gaaw te dañuy jéem a fexe toujours nuñ koy contrecarrer donc insécurité bi dafa jóge fële état bi war ko contrecarrer léegi nag moyens yi mu laaj ah, ñi ngi ciy def li nga xam ni peut-être moom la ñu mën waaw mais wax dëgg yàlla actuellement mën naa wax ni àddina bi yëpp looloo tax ñuy soxla sécurité privée waaw sécurité privée dafay ñëw pour appuyer sécurité sécurité d'État société privée de sécurité dafa war a ñëw police dafa war a mën a gendarmerie mu nekk un métier boo dit. n'est que nit qui se na cee gis n'est ñi nekkul police ak gendarmerie wu te bëggoon ko it une femme mën a gis seen bopp ba compléter encore une fois euh, action aux police ak gendarmerie parce que nous toujours am nañ ay priorité par rapport à ay terrorisme par rapport à ay menace d'État par rapport à lii donc de telle sorte que ni agression individuelle pour nous maîtriser Ce c'est pas facile donc nous ki une première barrière bon deuxième barrière bi état aussi def lépp loo xam ce lii lañ société de sécurité yi aussi nek des gens yoo xam ne yi nañ leen former formation bu bas, formation bu bas lan xam ce que c'est que le droit waaw xam lu ñu def ak warta ba pare nekk dans des bonnes conditions aussi pour war comment mën a def comme ni ma koy waxee état bu gardien état bu garde du corps état bu expert état bu loolu yëpp waaye daal nit ki day waajal boppam pour jéem a am sécurité état bi dafa war a après insécurité bi nag actuellement li ci ne rek mooy alors encore une fois il faut qu'on se donne les moyens même les collectivités peuvent s'organiser waaw kër gu nekk nit ku nekk mën nga organiser sa bu àndee quartier bu nekk mën nga organiser sa quartier dëkk bu nekk war ngaa mën a organiser sa dëkk bu may wax loolu waxuma ay bande punitive mais quartier bu ne am na ay jeunes yoo xam ne liggéeyuñu waaw ñooñu war nañu mën a organiser wu ñu jël leen en charge ci ci le minimum possible ah ñuy organiser wu ba assurer le minimum de sécurité au niveau de leur quartier même bu doon sécurité d'alerte 24 heures sur 24 ba nga xam ni lii lu xew rek ñu war a mën a intervenir ci ci ci premier échelon. loolu base de sécurité bu non négligeable la mais nag li ma jàpp ne moo gën a ñàkk insécurité ci Sénégal li ma ci jàpp man mooy sénégalais dafa jàpp ne moom boppam rek waaw ak këram rek état dafa mel ni ennemi la ci moom police dafa mel ni ennemi la gendarmerie dafa mel ni ennemi la xëy na nag relation yi dem ak liy mënti am mooy indi loolu. loolu loolu laa wax mais crise de confiance kenn xamul fan lay jógee ak fan lay jëm waaw mais li ñu war a jàpp d'abord muy homme de tenue bi comme muy population bi homme de tenue bi ci famille la jógee dem liggéeyi su demee liggéey population bi lay liggéeyal su liggéeyee ba pare day delluwaat ci famille am kooku homme de tenue bi war na koy bàyyi xel tout le temps mais population bi aussi war nañ bàyyi xel ne nit ki bu demee pour nekk homme de tenue c'est pour sa sécurité te kooku bu fa newuloon 24 heures du tal lekk du tal naan du tal nelaw waaw kon nag même bu dee def ay erreur nañu xool lu baax la muy def ba ñu mën koo tolérer loolu ak ak nan lañu ñu mën a fexe ba rectifier loolu te ci kër la dëkk tamit ñooña nañu wax ak ñi nga xam ne ñi gis nga fii lu ñu fi def nit ñi xam nañ ko kon nag ka war a wax bu waxee rek dina tane bu commencé ci père de famille bi commencé ci chef de quartier bi commencé ci nii ay échelon ba yegg ci président république mais il faut que ñëpp engagé wu am na réew yoo xam ne seen sécurité quatre-vingt pour cent population yi ñoo ko yor ñële dañuy assister rek xam nga lan moo ko jëkk a yor mooy renseignement bandi yi ci kër la ñu dëkk ci kër la ñuy jógee bu ñu defee seen acte ci kër yi la ñuy dem waaw tey jii bu fekkante nit ñi honnête nañu rek du duñ ne kii sama doom la sama jarbaar la sama kii la dama koy protégé wala bu indee ay retombées ñu teg non am na foo xam ne fii boo fa demee. boo gisee sax kuy fenêtre rek nga police ah de gis nangam nangam wala gan de na fi xamuñu ko nangam nangam tax police efficace police ci renseignement la basé police ne pour xam lu ne waaw amul moyens aussi pour réagir fu ne tax la sécurité privée aussi am place dans le système waaw population yi premier devoir devoir de renseignement te renseignement rek lañ bañ Sénégal ku ko wax mu ne maa ko boole maa ko def lii maa ko def laa yow xëy na loragu mais ka muy lor yow vraiment xooloo ko te nag yàlla sax dafa wax loolu waaw à plus forte raison nag keneen kuy gis naka sa dul noonu da naan ko bàyyil su bàyyiwul da nga koy wax ki nga ko war a wax waaw moi je loolu bu ñu amoon rek sécurité am.